says Yai Barom. Yai, belong, Yai Barom means it belongs to you. You nyoko mom, suñ boss la. Whatever the situation, Gamsel is going to be here forever. Our children, grandchildren, great-great-grandchildren will be working for this company. I thank our customers very, very much for patronizing Gamsel because without them, we wouldn't be here today. So thank you very much. yéen yéen barom. lépp rek client yaa ci Gamcel daf ci ñëw. gis ngeen rek burka démba joxe nañ fi xar yu bare bare bare customer bu njëkk bi ñoo oo muy alaaji Idrissa Diallo ako memu alhaji Idrissa Diallo ti 9935050 kooku Liman Street la dëkk Banjul Gamsel jukkoom dafa rafet ba lépp lum la wax rek mun nga ca Gamsel du or du fecc kóllëre te lépp lu muy joxe rek day am qualité ku xool xar yi tey xam ne Gamsel duñu ay naxakat ku xool xar yi tey xam ne Gamsel rek a ko yor. lépp loo xam ne rek suñ customers yi loolu lañ bugga ñun ñu ngi ci suba ngoon guddee bëccëg bi xaaj ñëwee tamit gis ngeen Gamcel def nañ ci seen wàll ba mu jeex yow ekkati fukki nit yóbbu ko màggal loolu yépp ñu ngi ko def ci biir Ababy Dieng Ababy Dieng nag soo gisee ñu indi ko mooy lépp mu ngi ci biir te koo xam ne am nga lépp ci sa biir kër googu ma ne am nga soxla pour uti ko ci beneen kër soo ko seetloo from January ba saa si yàlla tey ñu ngi joxe scratch and win bi biñ ko loncee ba tey ñu ngi jox nit ñi maalo ñu ngi jox nit ñi diwlin ñu ngi jox nit ñi télévision ñu ngi jox nit ñi générateur rax ci dool yi ba bagaas yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi koo joxee sa jaruta tudda ñoom tiisaat set box ak yooyu waaye li gën a important ci li ñoo joxe mooy xaalis bi la a nga jënd hundred dalasi scratch card soo ko xoosee fekkee ne wërsëg banque fa ni nga gis um, xaalis bi ñun Gamcel dañ la ko jox nga enjoy sa bopp ak sa famille. man gis na families yu bari win nañ ci tubaski bi ku nekk ay ten thousand ten thousand ten thousand ten thousand te loolu yëpp ci biir scratch and win bi la ñu ngi bamtuwaat rek di wax client yi ne scratch and win bi jeexut mu ngi on ba léegi scratch xoos leen ndax ngeen gañe Gamcel nag nekku ne lii rek la dee def Eh, si biir at bi ne ñëwa promotion si bëree bëree bëree bëri pour bégal suñ customers yi promotion yi liñ ci jublu rek mooy bégal client yi make sure ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Gamcel buñ réccu liñ toogee ak ñun buñ réccu li nga xam ne moom jël nañ Gamcel tànn ko def ko seen bos xam nga su la nit tànnee am nga coono de moo tax bee tànn rek ñun ñuy try liñ mun su bi jeexee ñu indi bi su bi la jeexee ñu indi bi loolu rek lañ si jublu pour bëggal client yi pour wax leen ne rek ñun dañ kontaan ci fukki at bii su fekkoon ne fukki at yi kese la foog naa tëj nañ lépp loo xam ne tey nit def na ko fi muy beneen compagnie ak ku munti doon nag yaa ngee toppandoor li sel def soo nag bon du fukki at yi kese du fukki at boo xam ne dañ ko waste fukki at boo xam ne fukki at yi njëriñ la suñ ak suñ client yi mu nekk luñ xeeb nag te di ñaan yàlla ñu mun a indi ay programmes yoo xam ne create strategies yoo xam ne dinañ mun a fexe ba ki koo xam ne customer la nga rek doo réccu lu nga xam ne yow ñëwee nga ko gan sa As uh, some of my colleagues said, there are a lot of promotions that have been done to get to this level. Of course, we cannot take every single Gambian to Mecca, uh, but um, as we continue in these kind of promotions, I think by the end of the day, you know, a lot of Gambians will benefit from this. And uh, we hope that, you know, we are ensuring that, you know, we provide these kind of services to a cross section of the country. You could see that winners came from all areas of the Gambia. Some came from the provinces, some came from the combos, you know, and, and so on. So uh, we're doing it to really reflect our being Yaiborom. e eh, la kuol ñanta tamala ñamen e eh, sita television to le nga faale ko e eh, ba tamandila wala ñaa e adum fana e bi sa fo kon contanta le kantunga men fo e eh, ŋawole ke e eh, birin i keta wina solti i to fundita télévision oto eh, to e to labbata da banta wala to e gamsel le la ko beke e milale man passeport soto fan gamsel le ma e ka passeport on ñiniŋ ke sambe pour ye pengu e aɗum nga fo e fanan ko jannibita e mbela ticketol kela gamsel yo beke e o kola fanan murta nga momoron ni 1000 dollars dila e wolomu no promisol mel dol fo e ŋawol kele e o kola fana biribita kan airport oto ŋe bendi gamsel janne ŋe bondi jang ŋe samba fo airport oto ŋela kuwol be topoto fo sayi i fotata biridu dappuleno kono le saytana e anin biri kata fana biri ka saynam fana e gamsel tate bendunne e ŋe tanan airport oto ŋe sayni nan e kantum wolomu kuuti meyalon ko ŋaw promisole di ko momoron ndin meyalanko e télé e gamsel e haaj promotion o gagné e ma mek solale kuwo kuru ndin meyalanko walla dunta hijo walla kuwo to e itata dunnaw kuwo kukono gamsel leɓa dunnaw ɓe to ete marie e ya mek so e fewo feren ndin ñanta kela hijo walla kuwo to ya beke a ñama anin a watola aɗum ngalon ko na hijilal mel yalon ko sa yi bo tanan maka e i bela suwol kono e ni baadiŋolu e ɓe duwa kam mooli ene moolu nga lon ko i contantale eh, li nga xam ne moom laay digtal kiliyaan yi mooy rek nañ continuer di use seen line bi di continuer di load parce que ñu ne ku yàgga ci teen baak fekk la ci léegi-léegi nit dajee man ajira mu ma ni ko naa mu ne ma man du may te maa ngi gamsel ma ni ko dégg la xam nga ñëpp duñ mën a win waaye am nañ yaakaar ne su yàggee win bi dina daj ñëpp te loolu tamit ku amul patient foog naa ni loolu du la fa fekka ñu ngi ñaan customer yi ñu muñ te am patient te continuer di nekk ak ñun ñu ngi créer yoo xam ne li ci yii ñëw ci kanam ñun dinañ leen mën a waatal ne moo daax li nga xam ne moom moo passé ci fukki at bi nekk ci gannaaw comme yéen a ngee ñun nekk la ñoo ñun rek di ngeen gis li nga xam ne moom la ñoo wax te yéen si seen boppa yéen a ko mus di wax ne Gamcel luñ la wax dëgg la te dëgg googu nonu su neexee yalla dëgg googu rek la ñoo taxawee parce que yeen yeen a mom alhamdullilah alhamdulillah gamsel gontane siri aray golleya allah raña oɗaga jamu no gondi ori jamu no gondi oɗaga jamuri ori jamu no gondi oɗaga heeri no gondi ori heeri no gondi ho sumo kita oɗaga gollunga ori imago nga ho sumo kita xaar hibun saxoxa kamma nan ga ni warro e, e, golle ke noxondi wara gollugusu ixa e i gollen ndabarti moxonga ibaga xo duwandingira ñayi onda sikinoxosuyi wa duwana kam seldangani o na ke arna kana daga kinia kiniya nda halla to ke nyangi toxe ñangidangani igara hibe ñangi nga do ke ya hiya ngonda ni siri siri siri siri parce que hibe ga ko ke serebe ga hiju ñawtuna aranga ne nda nan pija na farlamugan ga ken kenda hi gore ga be kinanga keni warjaga e warjaga e sire sire ani kei warjaga gore ani alla agar nyanga odangani arsa wadu ana gamsel dangani arna kana de kiniya wadu ani dangani arna alla alla ganta halla toke rohi geno gondi yo wana haramare men junya nyamar ni ke higai asunna trai isungur kata gamseli lain kei gamsel ni eh eh eh, eh kompanya iwa islamunde mana wa miskinunde mana parce que hibe ga sere be akeme na bure utna an khibar nan tan daga hijunga kenda hi gore ga hi gore nya nya ngandanga ni kam seli wa ga ni kenya ni ndi sare mi daga na bolongen na liran kunne ndi ngesunari na ga khara golle be nya ngeran daga tugana ngenta ga tu kan khara kenya tingan sire nyai yo ka allah rinda khella rinda kita nga ga ni ga chema ga ta golli sire kei arna khatuga ta gollenga aljanna kallangu tekebe kani waduwa na arna anyango usuranga take yo persira kebe kani waduwa waduwa dangani arna kana daga kina hike nokondi parce que kesu saba mbo jamane jamani tengu e nyai jamani tengu jamane e jamani kesu ndakidene wa kanyu warni siri gache maga ware kanyu wari tagagol disire gei ngedi ga mindi diga ndiga yamma gabu ora jamudi ori jamu nokondi hosumu kita oraga ora gollu nyopa madina yi owa madina ora bido segu nyano ngani nangiri madina ndaga makai maka ga ora bido segu nyano bila segu ninga kinye ora